Manou jaawale mbokk yi le 9 mars 2022 arène nationale ñu jëm ànd ci ak ADP Amadia production di ñëw ak ñun ci première édition drapeau Oumar Sow conseiller spécial du président Macky Sall Mbagnick Kaïré moo koy bëree ak Ardo combat spécial bi war a dox ci diggante Bathie Junior ak Ndiaye Diène Amadia ne ci combat boobu ci lay rendre hommage suñu maam suñu papa Dut Seck yaakati mi lamb di jooy te noppeeguñu ak yeneeni combat préliminaire ci bésu le ay xale yu mën a bëre mën a ambiance lool ne boisson king africa pub abdoulahat import export ak agence immobilier bu mag waaye dugg bi tamit yombal na ko lool ndax nee na supporter 2000 francs CFA rek ngay fay amateur nga daal di dagg nag junni kon mbokk yi nañu joxante rendez-vous le 9 mars ci arène national ñu ànd ci ak amaja diggante ardo ak mbañi kayre lamb la joo xamante ni moo fa dëgg ne per per ci loo sama doom ji laa indi. école bi ñaari combat lañ bëreegul ren. ah. école bi ñaari combat lañ bëreegul. bëri na keroog naa nga andi ñaar de. waaw yàlla baax na. lan mooy secret bi bëri mbëru simple yëpp ñëw sa écrit taxawal. ah non loolu xale yi parce que man du ma karab karab yi may xëccoo mbër non non moom booleeg yow nga ñëw liggéey te man du ma du ma yërëm si entraînement du ma yërëm du ma neexal mbër tamit mhm. waaw te benn mbër mënu ma yilif waaw amul benn mbër boo xam ne mën nga ma jaay champion waaw parce que boo xoolee Mbaye Gueye xool Double Less dañ ko liggéeyloo dañ leen liggéeyloo ba ñu àgg ñëw bu man mii Papa Diop ma yoroon ak Boy ak ndom si yàlla si Mbàkke ba daaw ñu ma yërëm xam nga dañ lay ne la pour nga am pour nga am pour nga daan mbër sa morom mbër il faut nga déglu li ñuy wax ba noppi ñi may entraînement pour àgg au niveau man mbër mu ñu mul entraînement lu ma ànd ak yow mbër muy def entraînement mbër moo dégg ñu xuloog moom déggul xuloo naa moom rek xamal ne ñu mul entraînement parce que man lu ma yërëm mbër li gën a bon mooy indi sa nawle sa xale indi ko ba fii ah muy muy sonn wala muy kii waaw wala muy ñàkk jom dégg nga xulal sama doom si loolu man aw ma mbër mooy neexal parce que man kenn daaw ma neexal. ordinateur loolu namm ci moom. ordinateur li ma namm sama doom laa namm si moom parce que loo yéenee doomu jàmbur mu dal sa doom ordinateur nga fa sambalaa nga fa te Zambala war nga ko wax loolu parce que Zambala mbéy booy ñi ñu ko. kii Zambala. mais kenn ñi ko booy bi kenn ñi ko jël. ko koo mën a zambala mën a bëre wala zambala mën a xeex. non temps yii waa kër Ablaye Ndiaye woo nañ ma man leen mbax mbax bëgg ngeen zambala. non zambala euh, mbëri simple yi comme ñom ñëpp a duggandoo si lamb ji ñoom la ñoom lañ tas si seen biir. zambala Ablaye Ndiaye. ab zambala euh, Boy Faye. Boy Faye bu mu bëgg ngeen. ñu ngi dox combat bi. Boy Faye d'accord na zambala d'accord yooyu mooy combat yoo xam ne day indi ñaari public day indi public dóor indi public samp. ah promoteurs yi nañu boole ñaari mbër yi euh, mbër yi nga xam ne ñoo jóge samp ñoom seen biir xamante nañu ñu bëre ñu wane ku si daa xeex xeex jàll ah man xale yii mooy tamit sama sam ñoom euh, ordinateur ak kii xeexaguñu de parce que seen premier combat lañu leen bëree loolu ñu daal uh-huh. waaw mais man dañ lay teg si yoon liin may sax ñoom ñëpp ku si nekk da am loo yor yaa ngi koy appliquer. macha allah loolu am na solo léegi dernière question bi Gaston naa la def ba convaincre leen ba ngeen nangu bëre le premier euh, janvier deux mille deux mille vingt-trois non du convaincre dafa am loo xam ne yàlla moo koy def si nit Mansour mbay bu ñaanee Macky Sall sax Macky Sall may ko bu ñaanee kilifa diine kilifa diine may ko man Mansour mbay sama kilifa la ndax sama euh, sama jabar. ak Mansour Mbaye ñoo bokk muy maamu Boy Niang bu taxawee na ma déggul defal lii du ma si teg baat waaw du ma si teg baat waaw Gaston tamit suñu kilifa bu nee nangam sangam du ma si teg baat euh, dafa am réeróo nag réeróo boo gis ñàkk waxtaan la yaa ngi dégg guerre mondiale sax waxtaan na ko jeexal waaw Aziz Ndiaye mii bu ñëwoon ne ma déggul ñaan ma dara ma may ko parce que mu ngi am njëriñ si làmb am na njëriñ si di adduna bi comprend dafa am ñoo xam ne muy Xaalim Samb muy Manso muy muy Mbeka Mbay muy euh, muy muy muy keneen keneen di ay kilifa dëkk bi buñ la ñaanee dara dañ nga leen ko mbay parce que liñ la li nga liñ lay ñaan xëy na seen njëriñ ëllëg la yàlla moom mooy xool li ka neex mu def ko ci nit. ah kontaan naa ah, jërëjëf. jërëjëf yow. wax nga ni. sant rek. indi ndam lu rëy rek. indi ndam lu rëy. waaw billaahi. xeex ngay def wala bëre. waaw lu mu laaj rek lu ñu digal rek. lu ñu père digal rek moom la ñuy ñëw def si incha allah. daa bëgg nga xeex. waaw lu mu digal mu ngi suñu bopp. père bëgg lu yomb de. waaw non lu mu ñu digal daal en tout cas dinañ ko jëfee incha allah bu arbitre sifflee. baax na bu gisoo di sant waa Sébi yëpp gisoo li may indi fii nii. ku daan sant ku daan sant macha allah ku daan sant. waaw tawfeex rek. damay daan. boo daanee nga ñëw. non damay ñëw. macha allah lool. sama doom nday sama xarit borom cees ñu bokk dëkk cees léegi ma ak yow. loolu dëgg la ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed sant suñu ñaari wayjur kii Bàmba lañ fi indi tey booy sibi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam waaw man nag ñu ngi may wax combat mais may guy gi laa soxla. Mbaye Gouye Gui du sa morom. waaw lan moo tax du sama morom fii la taxaw di dëkk Boy Niang Boy Niang day moromam. Boy Niang du morom. non lan moo tax du sama morom la min euh, daan nañ ko maa moom ci victoire laa jógee daan vie top ëpp ñuy dafa rëy fot nga sérieux problème la yow Mbaye Gouye Gui yow laa. naa la Bour Sine numéro barke Serigne Bamba daa am lu ma métti ci mbay guy gi loolu foog ma ak yow ñu toog ñu waxtaane ko barke Serigne Saliou Mbacké ñu toog waxtaane ko. jërëjëf Pikine le 9 mars 2022 arène nationale la jëm ànd ci ak ADP Amadia production di ñëw ak ñun ci première édition drapeau Oumar Sow conseil spécial du président Macky Sall Mbagnick Kaïré moo koy bëre ak Ardo combat spécial bi war a dox ci diggante Bathie Junior ak Ndiaye Diène Amadia ne ci combat boobu ci lay rendre hommage suñu maam suñu papa Dul Seck yaakati mi lamb di jooy te noppeeguñu ak yeneen i combat préliminaire ci bésu le ay xale yu mën a bëre mën a ambiance lool sponsoru bés bi kan ak la mu ne Boisson King Africa Pub Abdoulahat import export ak agence immobilier bu mag waaye dugub bi tamit yombal na ko lool ndax nee na supporter 2000 francs CFA rek ngay fay amateur nga daal di dagg nag junni kon mbokk yi nañu joxante rendez-vous le 9 mars ci arène national ñu ànd ci ak Ama Dia diggante Ardo ak Mbagnick Kaïré lamb la joo xamante ni moo fa dëgg nemees